arbitre sifflé na 19 heures 17 minutes attention Wouly Adama Diouf Wouly door na ko Adama Diouf rëpp na Wouly Adama Diouf Wouly Adama Diouf Wouly dootoo amati Wouly dootoo amati Wouly Adama Diouf jàppante nañu attention Adama Diouf jóg na Siteu Adama Diouf rëppati na moo moo moo Wouly daanu na Wouly daanu na Adama Diouf daanu na Wouly wuy yaay Wouly ma naan Siteu rek Adama Diouf ba ngay woo pëp pëp pëp nax ko ba daan ko rër rër rër bëre bu brouillon eh tey wulli dootoo wax ay eh, waay wulli dootoo wax man de juum naa ba naan Siteu parce que damaa jaxasoo xamatuma woon lu may wax non tey wulli daanu na wulli wulli nañu ko eh Adama Diouf nee na jeexagul waaye eh, wullee ngay bëriwaat ma ngi koy dóor <laughs> non lii amul fenn arbitre sifflé jeex na mu ñëwaat naan ko dama lay daanaat. wulli continué na da ngay wulli oh tey suñu mbër daanu na mbëru Sénégal daanu na mbëru àdduna daanu na mbëru diaspora bi daanu na ndeysaan ñoom ñaar def nañu fair play ay xarit lañu li yëpp pour neexal maa ngi sant yàlla yàlla suñu borom laay sant ñëw naa entraîné naa ñaan naa bëri naa yàlla may ko na ko am na ko ji. mais benn instant yaa amoon avantage ci combat bi noo def avantage boobu rëcc la. non man tey sax damaa ñëwoon jël du soo bëri ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom tax a bëri. moo tax bi ma songee rëcc naa. ma ma way merci beaucoup. ma bëgg ñu contact bi ñu bëri mais nag. mais bu laa la moo tax nga dóoraat ko. non boobu boobu dañoo fo rek. non mooy forme bi nga indi tey bi. entraîné rek. mu mel ni combat bi dañoo yaakaaroon da ngay caaxaan mais da nga entraîné carrément. bu ma gis xam ne tey entraîné naa boo xoolee ni be rek Aladji Mbaye. da ko sori daan ko. bien sûr na ma ñetti yoon defe daanu ma. macha allah mais ko Ardo daa mel ni